foofu fa ca Inde comme li nga xamante ni mooy attaché militaire muy ki nga xamante ni mooy le général Kandé ñu gën ko xam ci wàllu xeexum li nga xamante ni mooy rébellion bi fofu ca Casamance mu joué ci rôle bu am importance ba indi li nga xamante ni mooy paix en Casamance ba nga xamante ni rebelle yi daal dinañ déposer seen arme ci loolu daal kii di nouveau pouvoir bi dafa exilé ki nga xamante ni mooy le général souleyman Kandé di chef d'état-major de l'armée de terre foofu ca New deli en Inde comme attaché militaire mu doon benn coup boo xamante ni dafa sûr jëmale ko ci mouvement force démocratique de la Casamance ginnaaw bi ñu sabree li nga xamanteni moy champagne bi jëmele ko ci exil bi nga xamanteni moy seen bureau kenn rek mo mënon téye ñii nga xamanteni moy mooy rebelle yi ku dul ki nga xamanteni moy général Kandé Bassirou Diomaye Faye dafa jël décision daal di koy exilé foofu ci New Delhi pour faciliter ki di général Kandé bokkoon na ki pacifié li nga xamanteni moy Casamance ba jamm am fa muy l'armée lourde bo xamanteni tay tey na ci ben comme zone bo xamanteni

Momo, il y indi une intervention j'aime le côté président Maxal ba nopi jaar ci colonel Kandé bi nga xamante pour que mu mënee lépp loo xamante ni doonoon na benn croisade jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy rebelles yi suñu sukkandikoo suñu source yi nga xamante ni tey lépp loo xamante waral exilu kii nga xamante ni général Kandé foofu ca New en tout cas benn parfum la daal de règlement de compte boo xamante ni dafa risque def li nga xamante ni mooy déterminant jaarale ko ci sécurité nationale ginnaaw ki nga xamante ni mooy le général Kandé moom dafa cumuler ay fonctions yu bare ci li nga xamante ni mooy état major de l'armée de terre ak noppi daal ci teg li nga xamante ni chef des forces force spéciale jaarale ko ci xolu dispositif bi nga xamante mo jëm ci walu guerre ak képp ko xamante groupe djihadiste nga ak terroriste à 60 km de Kidira comme luñ ko prouvé la dernière attaque bu amone fofu ca Melga nek ca Mali kii di général Kandé daf ci jouer rôle bu am solo tey mu doon ben décision bo xamante dañ koy exilé mom général Kandé mu doon lo xamante jaaxal na ñu bëre. ginnaaw bu mu donné première fois que ñu dal di gis gagne nga général ñu nommé ko mu doon attaché de milliards en tout cas liñ ko jappé manam quel gâchis maanaam mooy yàq boo xamante ni amul benn solo lii di départu Kandé nag jot na benn victoire boo xamante wa force démocratique Casamance di rébellion yi ñom ñoko am ginnaw bi nga xamante ñom ci seen bop ay bureaucrates yo xamante suñu segoo ci ay combattants lépp lo xamante ñu ko doon wër muy benn étoile bo xamante dafa nek ci suufu sak sak yo xamante say mën nañ ko dem chercher ji ci li nga xamante mom lañ tuddé ñu tuddee l'antichambre de l'état-major comme ni Napoléon doon waxé muy li nga xamante dal ñu bari ñu koy ñaawlu poser ci ay questions lu waral ñu jël benn général armé dal di koy def attaché militaire ki nga xamante nomé nañ ko général ba noppi foofu ca benn ambassade boo xamante ni moo nekk foofu ca Inde ci New Delhi alors que général euh, kii di Kandé lépp loo xamante ni mooy jàmm ci Casamance diggante moog rebelle yi moom moo ko réussir daal di koy maîtriser ginnaaw nag mouvement force démocratique Casamance yi bu régime bi ñëwee ñu ngi doon menacé bu baax a baax jëmale ko daal ci lii nga xam ne ñu ngi ko doon demandé muy seen indépendance ñenn ñi jàpp nañu règlement de compte la kii di général Kandé moom nee dina attaqué li nga xamante ne mooy décret bi président de la république euh, jël jëmale daal di ko exilé en tout cas danañ xam fu wànnante ni mu jéeg bëtam su dee si réforme de la justice lañ ceeku xëy na kii di général Kandé mën nañ ko waat fii mu continuer lii di mission <laughs>